bravo à toutes les femmes bonne fête à toutes les femmes Fabi, qu'est-ce combat bonne fête à toutes les femmes yéen suñuy yaay yéen suñuy jabar suñuy tante suñuy cousin doomi bon souliers, ñu sénégalaise des Adji sar Adji sar n'est pas représentatif de la femme sénégalaise ñun xam nañ lan moy femme sénégalaise

aar seen réew. gis nañ ni ligue bi nga xamante si ni sax da doon taxawu jigéen ñi bii pas dañoo jël seen ay disposition ne duñ fokk ci ay fen duñ défendre ay fen donc kenn mënul tuumaal la femme sénégalaise.